national Macky Sall xañ ko ko ndax lan ndax affaire troisième mandat donc je pense que aussi donc il est temps aussi mu rattraper loolu noonu ci bis bu ñu installé bu ñu installé depuis parce que euh, am naa benn collaborateur bu mu mos di waxtaanal nii mu ne ma fi mu toog ci siège assemblée nationale jour mhm. boobu mhm. la ko envoyé message ne ko Macky Sall bu la trahiré ma bàyyi wante ak moom mu ne ko il il vient de le faire jour bi nga xam ne ci la ñuy installé assemblée nationale alors euh, Salma mhm. euh, li li li Ousmane Sarr di wax léegi ak li Mimi Touré wax kon Euh, li ko confirmer mooy xëy na li mu li mu wax ne Macky Sall. moo ne député yu benn bëkaar nañu deltu ginnaaw ci loi bi ñu bëggoon dugal. Mhm. que le bu mu amati pouvoir dissoudre assemblée nationale. Mhm. kon mu mel ni rek li Aminata Touré di wax li nga doon wax léegi daf koo xam ndax daf leen pratiquer euh, mais aussi beneen fànn. muy nekk France di servir intérêt France. Hmm. di woy di jiite parti politique fii ci Sénégal di fa am ingérence. Hmm. interpellé ci sax le président Emmanuel Macron. Hmm. est que loolu tamit Sénégal warut ci xool l'état du Sénégal tamit warut xoolaat taxawaayam. au-delà de Mara Amy Touré en tant que homme politique bu ciy wax. oui comme li Ousmane Sarr wax léegi dafa am solo parce que euh, madame Aminata Touré nekkul n'importe qui. Mm-hmm. comme niñ ko waxee jot naa euh, am ay poste de responsabilité yu am solo fii ci Sénégal ndax euh, géré woon na fi ministre de la justice géré woon fi primature nekkoon fi envoyé spécial bu Macky Sall. Mm-hmm. nekkoon fi it njiital benn institution bu ñuy woowee conseil économique social et environnemental ça veut dire mm-hmm. na bu baax état aussi nekkoon fii directrice de campagne euh, bu Macky Sall je pense ah donc sa euh, veut que cheminé na ak ñoom xam na seen ay mbir tête de liste voilà législative yi nii passé donc euh, tey bu waree wax si ñoom dinañ ko déglu parce que ay waxam saa su nekk rek en tout cas man su koy jëmale ci waa Bennoo damay damay baax di ko déglu attentivement jox ko sama nopp nopp bu baax bi parce que nag li mu wax noonu man je l'ai toujours pensé que Macky moo nekk à Paris ou, ou à Mara Marrakech di ruube Sénégal ruube politique Sénégal man loolu noonu laa ko yaa ko jàppee bi ko Mimi Touré waxee démb aussi dafa dëggal rek li nga xamante ne moom laa doon xalaat parce que tey boo xoolee opposition bi en fait euh, cette sorte d'opposition laay wax sax dafa mel ni dañu xëy rek joxante benn mot d'ordre tir groupé conférence de presse communiqué di ko jëmale ci nguur gu bees bi donc soo gisee Euh, Seydou Gueye Yoro Dia ak ki nga xamante ni moo di loolu Abdoulaye Mbow. ça <laughs> luy luy loolu. dafa ko tay su ma ko xalaatee rek sama xel bi ci loolu nekk. <laughs> la tudd. a wax du ma ko tay loolu. aywa <laughs> donc ça veut dire ñoom euh, Mimi xam na leen bu baax a baax Babacar te. li mu wax dafa am solo que euh, <laughs> yaa ngi may dépendre <laughs> non fii kay ku fi ree yow la <laughs> alors Abdou Mbow euh, li mu wax dafa am solo si ñoom seen conférence de boobu noonu mu ngi doon wax que siège APR bi benn caabi la am mhm. ça veut dire que buñ ko ubbee ci ndëgalu Macky Sall la jugee buñ ko tëjee ci ndigalu Macky Sall la la jugee parce que caabi bi benn nit a koy yor te Macky Sall moo mën a wax joxal diw caabi mun ko koo jox. Mhm. ça veut dire que depuis là où lay joxe ay ay ay pour ñu ubbi siège bi maanaam moo leen di naan jug leen def leen conférence presse wax leen noppi leen bu ngeen di wax na ngeen wax ci lii bu ngeen euh, bu leen wax ci lii donc ça veut dire que Abdou Mbow euh, communiqué bi nga xamante ne jékki-jékki woon na def ko. par rapport ak euh, pouvoir de dissolution de l'Assemblée bi nga xamante ne le président de la République waroon na koo mën a am Macky Sall da leen cee artu ne teg leen ko ci suuf boobu teg teg leen ko ci suuf parce que lan xëy na boobu jox leen ci ndigal waaye yi waxi dof lañ lañ fa wax nekkul wax yoo xamante ni war nañ ko mën a wax di ko di ko di ko di ko teg ci loxo askanu Sénégal. parce que amul benn soubassement. waxi dof mais oui Macky Sall lan la leen wax. Ah, teg leen ko ci suuf. mais peut-être bokkuñu ci gis-gis ñoom jàppoon nañ ne proposition de loi boo xam ne. war nañ ko bu jàll. c'est impossible. Mhm. parce que proposition de loi boobu bu ñu ko defee ba pare après Bassirou Diomaye Faye moo yor euh, décret aussi pour signer que ñu promulguer ko Bassirou Diomaye dina signer benn loi boo xamante ni moom day tere boppam mu mën a dissoudre l'assemblée. y a y a des yu ñu ko mën a continuer aussi. waaw je sais mais en tout cas li tax euh, Macky Sall xëy na euh, taxawee taxawaay bu ni mel ci ñoom day gën a dëggal rek en tout cas li ñuy wax que ba tey jii loxo mi ngi ci li nga xamante ni moo di. ni ñuy gérer politique Euh, l'état du Sénégal bu fekkante ne l'état français amul élégance ak retenue peut-être ne kii kat comme euh, dafay woy di jiite parti politique biir Sénégal ba léegi. Mm-hmm. on peut dire même le le principal parti de l'opposition Sénégal ce qui mm-hmm. veut dire que euh, mu ngi mu ngi am joxe ñàkk bàyyi ci politique bu Sénégal ba léegi. est-ce que kon bu fekkee France amul élégance su ne kon kat kii mënul di servir sama intérêt le pays l'état du Sénégal warul mm-hmm. jël ay responsabilités am que mu wax directement ak Macky wala l'état français. que lii lu mel parce que lii Aminata Touré di wax mënoo ko ci génne ingérence bu bu bu état français ci sunu. bien sûr et puis c'est dangereux pour nous sénégalais parce que nag. Ah tey Macky Sall euh, dafa détenir ay information mhm. militaire yaa ngi dégg sécurité. Mhm. loo mën a loo mën a wax rek fii ci Sénégal daanaka Macky Sall détenir na ko te man dama xamul Babacar lan la war a mën a daw bay daanu. président boo xamante ni yow gérer nga sa réew. Mm. douze ans durant nga jóge fi ñu nattal la ab salaire boo xam ne moom nga war a am douze euh, euh, chaque mois di neuf millions utal la garde du corps aide de camp chauffeur cuisinier loolu yëpp buñ ko xaymaa maanaam yow ñi nga xamante ne dañ lay topp di ànd ak yow di liggéey ak yow rek vingt cinq millions de francs CFA dinañ ko dikkee. ak maanaam benn gafaga boo xamante ne aussi dañ ko tegee à part tool ci quarante millions xaw ma quarante deux millions maanaam pour ay billet d'avion sa dem ak sa dikk loolu yëpp Macky Sall daf ñu koy coûter de au-delà de neuf millions de francs CFA yi nga xamante ni da koy recevoir chaque mois pour lan est-ce que tu t'es la question à savoir lan moo tax ñuy def loolu noonu yëpp pour mu toog maanu du soxla daraay kenn mmh. duñ ko proposer lenn loo xamante ne dina war a mën a tax mu ne naa jaay sama gor wala naa dem jaayati sama askan parce que ci njaay ñu jaay ñu la dëkkoon moom Macky mais après nag avoir servi toute une nation douze ans durant je pense que c'était l'occasion une fois de sa vie mu maanu mais lii muy def nii par exemple bu fekkee intérêt France dafa taxaw intérêt Sénégal taxaw Macky Sall fan lay taxawee. moo jaaxal ni. ban position lay taxawee sachant que tey Sénégal dafa nekk ci benn croisée de chemins benn selebe yoon bu doy waar parce que autorité française yi ñu ngi naan est-ce que mainmise bi ñu amoon ci Sénégal dinañ ko mën a am tey ba tey. ndax tey rupture la gouvernement bi woote changement de régime moo fi am donc enjeu yi dafa nekk lu doy waar pendant cette période Macky Sall mi ngi jaabante entre Marrakech di dox yónneen pour ki nga xamante ni moo di Emmanuel Macron nekk lu doy waar Babacar donc euh, ci 2023 yaakaar naa la la fi Antoine Félix Diome waxoon jamono bi Pastef di dajale ay fonds politique financement mhm. de l'extérieur financement de l'extérieur loolu lañ fi waxoon demoon nañ ba dissoudre le PASTEF. Mhm. est-ce que tey jotu ci gouvernement bu bees yi ñu xool lan moo war a nekk tey taxawaayu APR soit Macky Sall day continuer di dox yónneen soit mu bañ a nekk euh, chef de parti wala mu continuer nekk chef de parti bàyyi yónneen gi ñu koy yónni mu koy dox. yaa ngi dégg ñaar yooyu benn dañ ko ci war a jël ci ci ay décision te tey la tas parti neex. Hmm. partenaire parce que tey conférence de presse yooyu nga xam APR bien sûr ah. waaw te bii bu ñu ko defee du bokk ak ba amoon de bii ci yoon lañ koy teg fan lañ koy teg xamal moo mhm. tey conférence de presse bi ñu par par exemple bi waa APR defoon la dernière fois kan moo ko financé xa ah, Macky Sall le part xanaa waaw l'APR fan la jëlee xaalis boobu noonu Macky Sall xaalis bi ñu koy fay chaque mois wala xaalis bi ñu koy fay ci muy dox yónnee ca France c'est des ah, questions qu'on doit avec tous ces cadres financement de l'extérieur pour financement de l'extérieur ñoom ñoo fi andi woon moom boobu ñoo fi andi woon définition boobu noonu bii nag wóor nañu ni que financement euh, de l'extérieur mën naa ne parce qu'il perçoit de l'argent des Français tey moom mi nga xamante ne moo di Macky Sall su fekkee yàlla doute l'État du Sénégal waaw moo tax ma ne la les partis politiques am na loo xam ne tënk na leen seen bilan chaque année nu ñu koy defee yaa ngi dégg il faut prendre des c'est vrai madame Aminata Touré interpellé na directement le président Emmanuel Macron waaye noonu la war a mën a interpellé tey suñu njiit yu bees yi parce que nag suñu sécurité dafa nekk en jeu te nekk lu ñu war a mën a fowee euh, tey suñu ay euh, maanaam suñu suñu devenir dafa nekk en jeu parce que nag être un président de la république n'est pas donné à tout le monde tey dafa détenir tey ay information yoo xamante ni Babacar top secret la top secret la te tey mënul nekk Marrakech wala mu nekk Paris di financer l'APR ci ban xaalis la koy financer xaalis suuf bi ñu koy fay chaque fin du mois je le répète wala xaalis bi nga xamante ni day dox yónneen ñu koy jox pour muy mën a financer fii donc loolu financement de l'extérieur lay doon. pourquoi pas tey gouvernement bu bees yi def ci ay lëñbët lu am solo la. il faut pas le négliger. d'accord alors euh, yow sa point de vue ci ci ci point boobu. Macky Sall mi nekk diggante France ak Sénégal. waaw xam nga xam nga mooy li wax naa ko fii trop. xam nga man euh, d'abord pour man nekk jaam mënul passé nga non mais parce que moo boobu rek laa am pour mën ko utiliser. parce que bul fàtte ne Macky Sall demul ba wàcci door a dem France pour nekk seen envoyé spécial. mais Macky Sall bi muy nekk président de la République si la ko Emmanuel Macron proposé loolu noonu Macky Sall nangu ko te boobu mi ngi nekk président de la République bu Sénégal. Mhm. maanaam tey jii bu xaaroon ba wàcc sax nga ne noo d'accord parce que wàcc na xëy na amul lu mu def mais koo xamante ni jamono bi nga xamante ni nii suñu réew yëpp moom lañ ko dénk. mu yor suñu sécurité yor lépp loo xam ne moom mooy dox ci biir dëkk bi moment boobu noonu dem na nangu donc beneen proposition boo xam ne defal nañ ko ko ci dëkk boo xamante ni nii donc da dañ dañuy dañ koy euh, xoolee comme dëkk boo xam ne donc daf ñuy jàpp wàllum jaam comme dëkk boo xamante ni nii ni muy utiliser suñu ay ressources jaarul ci yoon. boo xamante ni nii ba léegi donc dafay continuer di ñu noot ci wàllu économique ak lu man di doon. mais Macky Sall moomu tey jii di nekkoon président de la République bu Sénégal dem foofu nekk fa envoyé spécial li Salma wax dëgg la parce que mënuñu continuer lan moo tax ñu ne président bu wàccee dañ koy fay chaque mois donc 9 millions de francs CFA loolu pour lan la. Mhm. pour lan parce que xam nañu ne président de la République boo ko nekkee ba wàcc mënatoo liggéey leneen parce que fonction bi nga yoroon mayeetu la ko. parce que yow da nga yor ay ay ay ay yoo xamante ni nii secret yooyu warul parce que mën na daaneel dëkk bi ñu dem ba lay jox ay garde yoo xamante nii pour sa sécurité nga xamante ni keneen du jóge feneen donc song la wala mu xool nu muy fexe